بنعمة ربك بمجنون سفر بمزة جنة سفر بمزة جنة سفر بمزة جنة bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa maolana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa asna xadimihi dawi ridwaani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallama yeesal suñu jaayante ak suñu cofeel ci Mawlaana as Cheikh al Xadim ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp tàmbalee nuyu bi ak ziyaar bi ci kilifa gu tedd gu baax gi nga xam ne moo tooge jotaayu Cheikhina al Xadim te mat ko sëkk di a Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibn Cheikh Mouhamadul Bachir di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko lool te dëgëral ko lool kàttanal ko ba mu àggale mbooleem ay yéeneem ak i naalam ci toolub lislaam bi nga xam ne mooy toolub sëriñ bi ak mboolem njabootu sëriñ bi ak mboolem ñun taalibe yi ak jullit ñëpp di leen ndokkeel di ndokkeel sëriñ bi ñu ngi koy ndokkeel moom ci boppam ci xew-xew bu màgg bii nga xam ne ci la ñu toll muy xew-xew màggal Tuuba di bisub sant yàlla xam dinañ ci si ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax ci ndokkeel jullit ñëpp ndax lay day loo xam ne jullit ñëpp ko bokk euh, waxuma sax jullit ñi waaye képp kuy doomu aadama te bëgg a jariñu rek sëriñ bi dugal na la ci biir ci biir ci biir cantam gi ndax moom no foofu la nekk noonu it lay waxe yaa minniya lillahi wa lirasuli wa li islaami wal qabuli loolu la yaakaar naa ne ku ci génn rek yaa ci génn sa bopp ndax buy buy wax moom day wax ne li may wax mi ngi jëm ci yàlla moo ci jiitu jëm ci yonent bi jëm ci jullit ñi waaye ak képp ku nongu képp koo xam ne ni ma yàlla def neex na la rek eh, mën ngaa dugg ci biir loolu la sëñ bi daal ne nag ki nga xam ne nag moom moo ko jaaxal sëñ bi ne nag ki ko jaaxal mooy ki nga xam ne ni ko yàlla def neexu ko kooku nag wax dëgg waaye yaakaar naa ne kon képp koo xam ne daal ni yàlla def sëñ bi neex na la man ngaa dugg ci biir cantam gi te cant gi bu ñu ko xasee wax mooy xéewal gi ndax xéewal gi ma waral cant gi te mooy màggal gi bu ko defee kon ñu war a waxtaan ci jëmmi màggal gi waxtaan ci li ko sabab ak fi mu jaar historique bi ak itam Euh, euh, ni nga xam ne noonu lañ koy defee ak buñ ko defee niñ ko war a defee itam lañ ca mën a jëlee ci njariñ loolu yaakaar naa mooy li am solo ci liñ ci tënk incha allahu taala euh, cosaanal màggal gi ni ñu ko xamee te gëstukat yi bari saxal ko mooy ne mën na sa ko delloo ci ñaari ci ñaari anam ci ñaari cosaan cosaan li nga xam ne moo tax sëriñ bi santaane màggal gi ak njëm ak ak jëmmi santaane gi euh, li tax mooy li tax màggal gi am mooy tukki bi mooy tukki bi sëñ bi tukki woon ci géej gi ndax xam ngeen ne bu tukki bi amul woon ñibbisi gi am ñibbisi gi amul kon màggal gi du am euh, tukki bi it ku ne xam na ne ya ko waraloon bokk na ci sababi feeñ yi ak sababi nëbb yi sababi feeñ yi bokk na ci Euh, fiiraange googu nga xam ne moom la lenn ci euh, chef yi wala ceddo yi fiiroo fiire woon sëriñ bi xëy na te àndoon ceeg ñenn donte sax duñu du ñëpp du ñu bari ci doomi soxna yenn yi ba taxoon ñu doon kalaame dégg nga sëriñ bi ak tubaab bi te ba fekk na tubaab bi noot réew mi ba naagu ci ne dootul amati kenn kuy jógati di di xeex ak moom wala ngay jaamaarloog moom ndax bu dee ab sëriñ la bu doon jiyaat fexe nañ ba jëflanteeg yow ba ñu baree bari déggatuñ leen donte ay jàmbaar lañ lool yu dimbale lislaam lool bu dee it koo xam ne ab ceddo la woon sama maami ceddo yi bari na ci ñoo xam ne ñoom itam tubaab bi ñenn ñi euh, faat na leen ñenn ñi mu génn leen ñenn ñi mu fexe ba Euh, wax wax ak ñoom ba convaincre leen wala ñoom ñu ñëw joxe seen bopp sax ànd ak moom nekkal leen fa nekkal leen fañ ne loola taxoon nañu wóolu ko ne amatul benn force buy jóg di jaamaar lak bi sëriñ bi jógee woote wooteem bi mbooloo mi wuy si ko nag euh, ngir ne moom dafay jëmm joo xam ne léppam day njariñ loo xam ne àndut ak lor lu bari ci chef yi chef de province yeeg chef maanaam chef de canton yeeg yooyu gis ne lii daal mi ngi menacé seen existence ak seen euh, seeni seeni ngóor ndax lu baree bari ci seeni dagak seeni maanaam njaboot ñi nga xam ne ci ci ñoom lañ daan yaakaar ay xeeti moyaal ak ay xeeti impôt yooyu bu dee tubaab bi ñooña bàyyi nañ leen fa dem ci sëriñ bi boobu sëñ bi jóge na Mbàkke Kajoor ba ñëw ba ñëw Mbàkke Bawal ba ñëw Daaru Salaam sanc ko ba ñëw Touba riir mi bi mu sancee Touba nag aha yëf yi nag gën a tee gën a tee nag doy waar ci nag tuuma yeeg bundu xataal yi sax lañ ko njëkk tàmbali di bundu xataal taalibe yi di leen génne di leen sonal di leen def lu ne ba ñi nga xamee noonu lañ tàmbali bind nag ay plainte di ko yóbbu ci tubaab bi tubaab bi tàmbali rek di gëstu mbirum sëñ bi ba rapport yi tàmbali xam ngeen rapport yi mi ngi tàmbali bi sëñ bi nekkee Touba euh, te ñu wax ne dafa sanc foofu suuf soo xam ne dafa diggu lool ndax mu ngi ci maanaam frontières yi réew yi seq dégg nga gox boobu yëpp Euh, ñu daal tàmbali nag di fa di ko di ko di di ko may bët wutit ay bët ki nopp yoo xam ne ñoo koy digloo ko xool te ñooñu du ñenn ñu dul ñi nga xam ne ñoo leen fa nekkaloon muy ceddo yi moo tax damay xam ne nit ki bu la doyloo ne la xoolal ma wala wala bu la maanaam diglul ma ah saa boo xëyee ne ko gis naa nangam saa boo xëyee ne ko dégg naa nangam même bu ko faalewut ci njalbeen gi bu yàggee su wax ji baree dana ko jéem a xool ba xam ndax li nga koy wax am na wala amut moo tax tubaab bi tàmbali nag di xool mbiram di ko gëstu ba li nga xamee ne noonu lañ ko euh, tàmbali di ko woolu nag pour mu ñëw wuy si leen waaye moom itam muy koo xam ne léppam daf koy teg ci ndigal boromam euh, ba mu demee ba nga xam ne war jot na ndigal ci war leen a wuy si fekk na booba yëf yi àgg na foo xam ne ci jaxasoo ci ci ci ci ci boole ak kalaame ak jaxase àgg na foo xam ne jéggi na dayoo fekk mu jóge Touba ca 1895 ca mars 1895 dem sànci Mbàkke Baari ca mois de mars booba. Eh, nag eh, foofa nag fa la jote ndigal ci boromam ngir génn dem wuy ji tubaab bi fekk na boobu tubaab bi itam mobilisé na ab armée ab bu bu bare bu mag a mag a mag ci njiital Leclerc ñu jóge Ndar jaar Louga ñëw campé jeewal googi ni ngeen ko xamee rek ba ni sëñ bi xëyee ci fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ne mooy màggal gi ci safar bi dem fekki eh, l'administrateur du Saint-Louis muy Leclerc moomu mu fekki ko foofu nga xam ne moo di jeewal kon loolu mën nañu xam ne mooy sababu zahir wala ci sababu zahir la bokk sababu baatin itam du daan lu dul loo xam li nga xam ne sëñ bi da ko nettalil boppam te mooy ne moom euh, bi mu bi mu demagul ci géej gi dafa wax ne booba fu sëriñ si di àgg ci diggante liimaan ak lislaam ak lexsaan àggoon naa fa te yooyu ñooy xaaji diine yi euh, waaye nee na booba am na yoo xam ne soxla woon naa ko te mënuma ko woon a am lu dul ci tumuranke ji ci noon yi jaxasoog samay noon wéet nag wéetaay woo xam ne danaa ci mën a jàmm sama borom jaamu ga ma bëgg dëgg-dëgg man ci liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam sama sang ba liggéey ba bi bi ma bëgg bi ma yéene dëgg-dëgg ba ba su ma ñëwee ràng ràngoo ay daraja ak i maqaama yoo xam ne bu ëllëgee ku ma yaakaar danaa la mën a añal loole mu misaale ko woon sëñ bi Mbacke daana ko wax di wax ne sëñ bi daana wax ne bi ma demagul ci géej gi damaa mel ne koo xam ne dangaa nuyu ku am maanaam parfum mu bàyyi xeetu parfum ci sa loxo ñu bari ñëw nuyu la ku la nuyu rek xet gi des ci loxoom ñëpp defe ne da yor parfum bu bari te parfum bu bariwul mu ne na boobu ma xam ne lay ngor tey jom mooy dem wuti parfum bu baree baree bari ba bu ñëwee ku la ne may ma ci wala tànk ma ci nga mën ko cee tànk ne loolu moo tax mu jaayante yoonu géej gi euh, kon ngir matug nag liimaan ak matug lislaam ak matug lihsaan mooy li ñu tuddee maarifa ak yaqiin ak wusul nee na loolu bokk na ci li tax mu ma ne daal faw danaa dem tumuranke ji ak yeneen sabab yoo xam ne bokk na ci eh, naw gu mu nawoon eh, yoolu ak tuyaabay ahlu badrin alkiram ñi nga xam ne ñoo xaraji woon badar ba gis ngeen ci xalwatum bi mujj def ci jàkkee daal xuddus yi te sallallahu feeñu ko ci weeru koor wu mujj wa ca bay sachin ba waxanteeg moom ba bëggoon koo tappal maqaamam xutbaaniya te mu xamal ko ne ko maanaam bëtam jël na loolu lim li géeje rek mooy bokk ci àndandoom yi nga xam ne ñooy euh, saxaaba yu tedd yooyu xamal ko ne ko loola moom la taxoon ñu koy la la taxoon loola mën a am wees na waaye nag euh, mënees na la koo jaay te liñ la koy jaay mooy ay nattu lay doon yoo xam ne dañ la koy teg bàyyi ko gi say noonu soo ko tegoo te rafetal muñ nga ñu jox la ko waaye nag boo saalitee rek waxuma la xañ la la nga doon wut waaye dañ lay rekki sax far la nga lépp danga koy ñàkk ca la ko waxee ca jomam ja ak fitam wa ak njàmbaaram nga ak ngëmam ga ak tawxiidam ja ne ko man de liñ may teg damaa xamagul lu mu doon ba xam danaa ko àttan ak du ma ko àttan rooge itam sàkkuma ko bay xam lu ma lu ma àttanut waaye li ma mën a waatde mooy ak luñ ma mën a teg lu rëy rëy Cheikh nett li na ko luñ ma mën a teg lu rëy rëy buñ ma téyelee roogi nga xam ne sàkkuma ko rek dana fi fekk jom ju ko mën a dégg moo tax sëñ Ablaay sëñ sëñ Xaadim Jaxate daana daana ma nett nettali wax ne sëñ Ablaye daana wax ne sëñ am Amsatu daana wax ne boo ko sëñ masaana nettali da koy wax ne ko Amsatu ndaxam moos góor day jom na ci ndaxam moos góor day jom baax na ci loole kon jomam ju réy joojee ak fitam wa te lépp tawxiid lal ko ak gëm moo tax mu nangoo dékku natt yooyu nga xam ne ñaar téeméeri nattu la ak juróom-ñett fukk ak juróom tolloog aaya suratul baqara te natt bu ci nekk nekk nattu yonent te nattu bu ci nekk mën naa faat bakkan te yooyu yëpp jànkonte naa ak moom teg nañ ko ko ci géej gi ci juróom-ñetti at yu manqué yi nga xam ne def na ko Gabon diggante Libreville ak Mayomba ak Lambarana ba ni mu ñibbisee nag kon bi mu ñibbisee nag loolu mooy kon li tax màggal gi am bi mu ñibbisee eh, gis ne lam doon wuti am na ko jihaad yi ngeen qada wa bay'i rabiha sama jihaad jeex na sama njaay tono woon na wala waaye kullu kalbin nabaxa bépp noonu bu jóg di yàq dootuma jublooti fekkoon na ci mujj gi ci la ci ci géej gi ci làmbar na waxoon na ne rabixtu fii tijaarati fii xurbati wa ashkuru l akrama inda turbati maanaam kon fekk na cant gi naaloon na ko yéene woon na ko ci mujj géej gi ndax ci làmbar na rek la la la wax ne euh, sama commerce mi ma séqoon ak sama boroom liggéey bis da ko tudde léeg-léeg léeg-léeg léeg-léeg mu tudde ko xurba tubaranke léeg-léeg léeg-léeg mu tudde ko tijaara am am commerce mooy lu mu séqoon ak boroomam la am lu mu ko doon jaay su boroom war koo jënd ba mu ko ko jaayee yàlla jënd ko jox ko njëgg te mat sëkk mu ràng ko li mu ko ràng ci ay maqaamaaki daraja abdullahi xadimu rasulillahi xillullahi xibullahi xalilu rasulillahi xalilu xabib ak yooyu ak yooyu yëpp dégg nga ba mu ko làqee ba xam ne kon jaay ma nongu na nag la ne nag tono woonaa suñu borom am njaayam day am bénéfice rabixtu fii tijaarati fii xurbati ma nekkee ci tumuranke gi laa am laa làq bénéfice bi ci samam tumuranke ci sama ci ci samam commerce mu ne waaye nag kon loolu jar na loolu kon jaral na ma bu ëllëgee bu ma delloo ci sama samam réew danaa sant yàlla wa ashkurul akrama la wax al akrama yàlla mi gën a tedd mi gën a généreux moom laay sant inda turbati kon yéene woon na sax cant gi màggal gi te ñëwagul sax jógeegul sax ci tukki bi wala bi mu ñibbisee ba dem gànnaar def fa ñeenti at yéen a jooju ne ci xolam rek xëy na mi ngi ko doon def ci geneen anam ba jóge fa ñëw ci yéen yéen jooju ne ci xolam ba jóge fa nag ñëw njaareem fekk na sëñ Abdul Ahad nee na mboolem diggante yooyu yëpp saa bu demee ba fukk ak juróom-ñett delsi ci at mi dana yàlla dana xiir tubaab bi ñu jëlee ko fañ ko tegoon yóbbu ko feneen yokk natt yi ñu ko doon teg natt yi ko ndax natt yi bu ñu jàpp natt yi tubaab bi rek la. waaye amoon na ki natt yoo xam ne natt yi suñ boroom la ak moom léeg-léeg suñ borom daan toog ba mu yàgg mu teg ko feebar bu tawat ju metti yoo xam ne daanaka bakkanam mën na cee des waaye ne woon na ko buñ ma téyelee roogi rek jom ji dana ko dégg moo tax doo daanaka daanaka lu nattu lu feebar metti metti ci moom lu tawat tiis tiis ci moom su bu déggee nodd gi ci jàkk ji rek day mel ne dañoo seppi tawat ja mu jóg dem julli del siwaat waaw yooyu mën nañ ci bari dañuy ci bañ a rek kon. Euh, muy def saa bu fukk juróom-ñett ñëwee rek ñu dolliwaat natt yi toxal ko fañ ko fañ ko tegoon yóbbu ko feneen ba ni mu ko defee gànnaar jooju ma wax ci yéen ci yéen jolof ñeenteeti gànnaar juróomeeti ci yéen ba ñëw njaareem rek bi mu ñëwee njaareem nag euh, ba am fa ab diir xëy na nettali yu am nag wute tuuti waaye wute gi amul solo diggante euh, nettali sëñ Mulaay beeg sëñ Abibu beeg sëñ Musaa Ka li mu wax yooyu yëpp daanaka amul xëy na du wute bu am solo. li am solo rek mooy ci njaareem daal ci la jotee ndigal nag ci fësal tënk maanaam cant gi nag muy màggal gi ndax ci njaareem ci la suñu laa bi nettali na ci xissa boo xam ne mi ngi ci alminax euh, benn bisu alxamis boo xam ne dafa toog moom sëriñ bi di waxtaan ak taalibe yi ni mu ko baaxoo def di leen soññ di leen waar amul lu may jékki-jékki rek am benn bokk taalibe bu gën noonu doon doxi ay yitteem far dajeek ci yoon wi benn lëkk ak lëkk lëg gu gu gu gu gu yéeme daal lëg goo xam ne daal gu doy la ndax lëg goo xam ne dafa maanaam dawul nit ki da koo ñemee taxaw mel ne ku koy ku koy dogale fu mu ko fu mu ko jaar rek mu taxaw wala mu kar ko mu mu amul lu muy def xelam may ko ne na jël kaalaam euh, teg ko ci kaw lëg gi maanaam muur ko ko maanaam yóbbul ko sëñ bi ndax da koo jaaxal nekk te lëggoo ko ci la sëñ bi di leerale mbiru maanaam màggal geek ak wàllu cant ki bi mu ñëwee fekk sëñ baa ngi toog ci mbooloo mu bari ñu ñu wër ko mi ngi jublu penku di leen waar di leen jàngal tombam yooyu mu ak suñu yooyu kooku mi kooku mi ngi tudd Mouhamad Massissé wala boog Mouhamad Ibnu Massissé alxaafis alxaafis noonu lañu ko daan tuddee xam ne alxaafis mooy ko xam da ngaa da ngaa mokkal ku mokkal alxuraan wala yu mel noonu nee na bi bi mu ñëwee daal di nuyoo sëñ bi fay ko mu ne ko ah, lii de sëñ bi. ak lëg la gu ma fare ci yoon wi sëñ bi ne ko lëg mu ne ko waa ah, mu ne ah andi ma xool mu daal sëñ bi daal mu daal koy jox lëg gi sëñ bi daal di daal di daal di tudd yàlla ne subhaanallah lëg gi de ñëwul ci neen ñëwul ngir ngir ngir ngir ak ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ak neen nee na fekk mi ngi jublu penku mu daal di wëlbati ko jublu sow daal leen wan ginnaaw tuuti ab diir moom sëñ bi ku tedd ki ba mu yàgg mu daal di wëlbati ko waat jàkkaarloo ak ñoom daa di wax ne Euh, lëg gi dey li ko fi indi mooy dafa ñëw ngir ñaari mbir benn bi mooy dafa ñëw ngir fàttali bisub tumaranke ba dafa ñëw ngir fàttali bisub tumaranke ba beneen bi mooy dafa ñëw ngir xamle si ne tumaranke googa bis ni ki tey jeex na li des mooy nag jot pay gi ak cant gi daane bisub tumaranke ba moo doon euh, fukk ak juróom-ñett ci jay sachin mooy cent 1313 loolu mooy kon ba muy dem ci géej gi kon mooy nga xam ne ci la ta ci la tukki bi tàmbali ci la ci la itam tumuraanke gu metti gi tàmbali daane bisub jeexuk tumuraanke gi ak tàmbalik pay gi mooy bisub alxamis yi nga xam ne moom itam mi ngi tombeek euh, fukk ak juróom-ñett ki safar daal di wax ne kon nag ba noppi daal daan ne nekk ba noppi it suñ borom it mi ngi may xamalaale ci xarafi lëg gi may yi nga xam ne may na ma ko ci tukki bi ba tax ma war cee sant yàlla daal daal daal di te loolu naa leen ko leeralal daal di daal tàmbali nag di ko leeral daal ne arnabun ci arab soo ko tekkee soo ko bindee day nekk ñeenti araf alif la ak raa ak noon ak baa daal ne alif gi mooy al ijaabatu ak nongu ak wuyu mboolem lu ma ko mas ñaan ci liggéey bi mboolem lu ma mas a sàkku ci moom ci liggéey bi mboolem lu ma ko mas a dagaan lépp may na ma ko te xamal na ma loolu ci xara ci xarafi arnabun gi benn daan ne ñaareel ba itam mooy arrido mooy ngërëm bokk na li taxoon may liggéey jaayante tukki bi mooy am ngërëmal yàlla na ngërëmal yàlla wa ridwanu min allahi akbar lañ wax la alxuraan wax ngërëmal yàlla li àjjanay rëy rëy ak li yi neex neex am ngërëmal yàlla moo dàq àjjana moo gën a màgg àjjana ndax nit dana am àjjanay gàcc sax te te te doo am ngërëmal yàlla koo xam ne yàlla da koo jugal àjjana rek ci am ràmm wala tilu wala dara waaye ku am ngërëmal yàlla moom laa sakk ci ne kooku moom dana am àjjana nit mën naa am àjjana te doo am ngërëmal yàlla waaye ku am ngërëmal yàlla moom laa sakk ne da nga am àjjana moom euh, te loolu yombut mu ne kon yàlla gërëm na ma <coughs> te mi moo ko xamale ci xarafi arnabun gii <coughs> daan ne nuun gi nag mooy an nafon ad a chamil maanaam njariñ li ma bëggoon ci tukki bi mooy loolu loolu mu mu misaaloon ci euh, ci parfum boobu nga xam ne euh, yow ku la seen da yàpp ne mën nga koo jariñ fekk amoo loo ko jariñee te loolu wóorut ndax yaakaar ji mën naa tas ëllëg njariñ loola taxoon may ma ma jaayante woon tumurank gi ba dem liggéeyi ba ñëw njariñ loola yàlla jox na ma ko yàlla jariñ na ma te dana jariñ ci man mbindeef yépp loolu wax na ko lu baree bari ba mu koy ñaan sax ci wakkaanax dafa ne lii aw silillati uridu wan fa'i bi yel yaa mughniyan an midfa'i yàlla li ma bëgg di ko wut ci yow maa ngi ñaan nga may ma ko naa ci jot te su ma ci jotee bu mu yem ci man de waaye naa na na nga jariñ ci man mbindeef yëpp waxul sax ñi ma yaakaar rek wala ñi ma sopp rek waaye mboolem mbindeef yëpp na nga leen jariñ ci man moo tax waxaa na ko feneen nafaani wa biya yanfaul wara yàlla jariñ na ma te ci man lay jariñ mbindeef yëpp waxaa na feneen ne nafaatani fanfa biyal ixwaana wala axawaati wak fi naa udwaana yàlla jariñ nga ma kon dikk waaye jariñ li bu mu yem ci man waaye na nga jëriñaale ci man itam mbokk yu góor yi ak mbokk yu jigéen yi te nga fegal ñu ak noonu wax ne bii di yaali bi laa bukkaay sama njaboot itam bokk na ci li nga leen ni nga leen maanaam ni nga leen di jëriñee ci man mooy na nga leen jubale ci man seenu njub ni jaar ci man te buñ jooy buñ am lu leen naqari nañ jub jub goo xam ne day ànd ak mbégte ak bànneex te yooyu yëpp gis nañ yàlla defal na ko mu ne kon nuun gi ci arnabun gi mooy njariñ li mooy an nafaxu daaimu shamil daane baa gi nag mooy albarakatu alwaasia mooy barke nag boo xam ne day des ba faw day yaatu lool day matale lool daane yii daal te loolu yaakaar naa ñëpp gis nañ ko barke bi te barke bi yëpp mi ngi tukkee mi ngi bàyyi ko ci tukki bii nga xam ne moo waral màggal gi ñu waxtaane kon muy al ijaabatu war ridaa wa nafon wal baraka yooyu la xamle ci xarafi léegi daal di wax nag bokk taalibe bi indi woon lëggi nag eh, ne ko yow nag li ma lay digal ci sa digganteeg <clears throat> mbindeefu yàlla bi mooy tey jii boo nekkoon fi mu nekk tey wax boo nekkoon place am bu fekkoon ne tey sam sam noon bu la bu la man dalaa jekku téye la ni ngay bëggee mu jëflante kook yow ci ñeewante ak yërmande ak baal la da ngay jëflante ak moom lëggi xam ne sëñ bi laa ne foofu lëggi rek daanaka xam naa damay xam tuuti tuuti kon mu seex fa ndax eh, taalibe yi tàmbali nañ di ko di ko di ko siyaaree karaay def yëpp <laughs> waaye nee na <coughs> borom xista bi di sëñ ma siise moomu sëñ ibnu ma siise moomu Mouhamad ma siise ma siise nee na nee na man maa ngi tiit rek ngir bañ maanaam lëggi rek samay loxo rek oh, ma ma daal di koy gaaw jël yóbbu ko sama kër nga dama koy teral su ma joxee su ma ko joxee lekk dugub du du lekk.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 gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi